mooy di sàkku dal ci campagne électorale bi ba ci sax bi bisub élection bi ci biir yéenekaay groupe Rewmi Network bi xalif général bu dina Baye mooy sàkku ci ñu nekk ci géopolitique gi ñu daal di fexe ba jiital intérêt wu askan wi muy intérêt réewu Sénégal ci boppam ca jamono jooje ca Louga Cheikh Omar tamit lu muy sàkku mooy dal ci fépp ci Sénégal waaye tamit ay élection yu jaar ci yoon Walf Quotidien ak enquête yéene kay jàngat boobee la ñu am tamit mooy kilifa diine yi jamono ji li ub seen bopp mooy nu ñuy fexe ba jàmm daal di am ci réew mi moo tax fësal nañ ko ci seen xutba ci julib tabaski gi ndorteelu campagne fegoog feetu tabaski bi ñu koy màggal moo tax Sud Quotidien jàngat ni feetub tabaski bi ci boppam dafa mel ni dafa muur campagne bi ci jamono yi ñu toll cofeel bi nga xamante ne xalif général kullu murid am na ko ci njiitu réew mi Macky Sall les échos daal dina koy fësalaat muy dikkaat ci kàddug Serigne Mountakha Mbacké mi doon dalal Mimi Touré ak ñi mu àndal ni ki démb di leen fàttali yëg-yëgam ci njiitu réew mi Macky Sall waaye mu mel ni ci wet ga nag ci source a ba tey Birame Souleye Diop mi nga xamante ne dafa jàpp ni wote benn Bokk Yaakaar moom dafa mel ni kuy daganal ñetteelu mandat ak li nga xamante ne mooy borom ñaari tur yi ci Sénégal te loolee xel mënu ko nangu kii nangul benn yoon tuub ay kàdduwam mooy Ousmane Sonko ci réew mi quotidien ñu ñuy xamal ni moom njiital Pastef dafa mel ni kuy dëggalaat kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko teg ko ci ndoddu Macky Sall ak li nga xamante ne dafa jàpp ni bëggul benn yoon Casamance ak ñi fa dëkk Vox Populi di ko dëggal di xam ne ni kon Ousmane Sonko dindiwul virgule sax ci ay kàdduwam ne donte loole neexul ñenn ñi waaye ñi ciy indi tontu yëpp nekkoon dafa mel ni dégguñu wala xamuñu li xew ci réew mi boobu ak léegi mu tontu leen ne bu ñu amee lu ñuy wax xanaa kay nañu ko wax njiitu réew mi Macky Sall ak ñi mu àndal ci biir Vox Populi ba tey Ousmane Sonko di xam ne ni kon votel Yewwi Askan Wi ci législative yi jox leen majorité loolu rek moo tax ba ñu mën a contrôler Sénégal nguur gi naka noone xeex ñetteelu mandat lépp Sonko daal di koy taxañ ci déclaration bi mu doon amal ci bisub tabaski gannaaw tontu forox ci biir yéenekaay bi ba tey Mimi Touré di fàttali ni Sonko ci boppam moomul Casamance ci déclaration yooyu la campagne bi dooree waaye campagne bi moom ak ñu ci tiit lépp jàmm dina am bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiitu réew mi Macky Sall ndax ci réew mi quotidien ma ngay artu ci recrutement lii di ay nervi Walf Quotidien di xam le ni kon Macky Sall ci jamono ji dalal xel yi lay nekk ci li nga xamante ne moom la ñuy njort ci wàllu fitna ci biir campagne bi prison break biir rëbës Vox Populi moo ni forces spéciales yi nga xamante ne tegoon nañ leen loxo def na ko ci pavillon spécial bu hôpital lu Dantec l'observateur gën a xuus ci évasion boobu di xam ne ni am na ci lees waxul ci mbir mi tàmbale ko ci communiqué bi nga xamante administration pénitentiaire bi fasal na ko te amul lenn lu leer li nga xamante ne wax na ko ci bis bi yéene ak ak Walf Quotidien di xam ne ci mbir mi ni kon li leer mooy moom Papa Mamadou Seck fexe na ba nax garde pénitentiaire yi ba daal di rëcc ca prison Pastef Ousmane Sonko tegoon na ko ci seen ndodd yóbbu ko ca CPI le quotidien yéenekaay di ñu xamal ni kon ëttu attekaay bi ci boppam moo daal di gantal boobu leeg plainte mu daal di koy classé sans suite aar suñu moomeel bëgg ñu classé sans suite li xewoon ca King Fat Palace hôtel nga xamante ne tax na ba njiitu réew mi mer ba fut waa Sénélec tax sax ba mu daal di tekki ndombal tànk ñenn ci ay directeur waa aar Sénégal jàpp ni loolee gënul métti jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy dundee bis bu yàlla sàkk coalition bi di métti lu tamit bi ak tabaski bi nga xamante ne dafa metti ci góorgóorlu yi Sénégal góor góorlu na ba jamono ji tembe daanaka ñoom ñoo nekk favori ci raaya yi nga xamante ne CAF war na koo jébbal ñi gën a xarañ ci saison bi Stade Quotidien di dikkaat ci favori ci distinction yooyu bokk na ci Sadio Mané ci Ballon d'Or bi ma Matar Sarr ci wàllub ndaw bi gën a xarañ naka noone Aliou Cissé ci entraîneur bi gën a xarañ Confédération africaine bu football daa dinay fësalaat seeni tur ni ki démb gannaaw lim bi ñu wàññi ci ñi war a xëccoo yëf yi Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may AES